Thank you. maa def suñu ziar naa tey amul simeeku keroog dama juumoon di topp dof bi dootuma simeeku si àddina. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba auzu billah bismillah min rahmaan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Afia Mbacke Fallou waaw daaral na maam borom Tuuba Xaadim Rasuul waaw li ma koy wax rek saa su ne waaw si bi nit yet na ma waaye biir géej gi ñëw may band bi waaw dama koy rek non non xoolal day neex dafa ñu waaye respecté waa CNG bu si mel ni ñoom Thiam ñii boo leen gisee ne da nga war a xam ñoom li ñuy bañ ci si saa yi. lii lii ma bokk si ak ñoom. loo xam suñu diggante man ak yow laa la wax. dégg nga dama bëgg nga wax sama diggante mu ngi ma joxe sama point. dégg nga loo ko joxe sa rënd yow. kii li ma koy wax du bandi du puus du paas. dama yow nii waaw. la 25 lay wax dama la doo bandi. waaw loolu la 25 lay wax. aywa aywa aywa wax la 25 yàggatul. déggoo li ma la wax de. ne dëgëral na fële na daf ñaatu. li ngay def du signature tey amul tëj waaye ku ko dëgg sox. waaw taxul ma ëllëg seen si ñëw bële bokk nañ ñu kii. di sant samay ñaari waajur di sant presse bi fi ñëw ñëpp site internet yëpp di gis Vox Lit TV xam nga Leewtoo gaa yëpp waaw waa Thiès Dakar gaa yëpp maa ngi nuyu ah. sama gaa yi waaw kii lu may wax ci moom rek bala may wax dara damay sant waa Géejawaay di sant sama mafia waa yëmbal xam nga benn barak gaa yëpp waa Massa Samedi Massa Ndiarème Bagdad di bëggee gaa di bëggee waa Gunaas bu baax a baax di sant Béykat Seye Béykat Ba maire Gunaas mu ngi jàpp ci combat bu baax di sant Aziz Ndiaye bu baax sama. ñun samay frère lañ maa ngi ñoom dañoo yàgg. démb ëllëg démb ñu ngi may joxe seen ñoom. dafa ñëw pour neexal rek pour xuloo ñëw na pour dara ñëw pour neexal. ñoo ko indi. yow sëggu ma yow ay neexal yow ay neexal. yow maa ak yow. yow maa yow di la waxal. gannaaw ma lan. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen bi di sant sama ñaari waajur. amul sant ñaar ñaari waajur ba wax ci biir waajur laa wax. di wax di sant rek kii amul yow dafa jeexatul ba ngay sant. waxal ak teel ay càmm per càmm per. yow bu ma jeexasee sama kër. waaw doo taxaw rek affaire bi day saf bala bëgg. li nga def ne amatul. amatul amatul yow li nga sëñ bi yow ki su combat bi mu daan la. pousse de passe déggoo li ma la wax de. kii Pape Sarr su ma kii. dafa oowal nga tëdd. ma la de. sant waa sant man Lamine ma dama nekk si ay loxo léegi. tey yaa tey damaa ñàkk. tey mu xëppoo tey xëppoo ma ndox. tey damaa ñàkk. di sant waa Guédiawaye bu baax tey tey dama nekk si ay loxo. dama nekk sa ay loxo temps yi. da ngaa yokk volume dama yokk du man des na li des si combat bi ci naa ko teg lu métti. xam nga kii na nga taxawee nee la mu taxaw nee di sant ku si mel ni tay dama nekk si ay loxo di nuyu moom chef bu baax nekk parcelle. di ko nuyu bu baax a baax a baax. kii da ngay xeex moom wala ngay bëri moom. kii a abim nekk billaay li ma a Cheikh teg ak sama waa école liñ ma teg per jiili xam nga liñ ma teg entraînement barki Serigne Touba mosuma wàcc combat bu mel nii waaw barki alxuraan dama nekk si ay loxo li léegi nekkatul bu si da liggéeyal boppam tay dafa am doomam noo ma bi naa ko fekk fu mu taw kii na taxaw rek xaar naa ko teg lu metti di bëggee waa seera bu baax Amar Ndiago di ko nuyu bu baax jërëjëf auzu billaahi bismillah yàlla yàlla musal mu tudd euh, euh, ci ànd waa CNG mu doo dem maa aj. rek ba mu tur leneen la ci ay. non kii man ak moom la. dëgg la dëgg la la kii ko moom moo faral kañ la woon. merci jërëjëf xoolal si tax xamu ma. man amul seen fi ñor moom a ngi ko bëre Balla Gaye mu ngi ko bëre Lac de Guiers mu ngi ko bëre Les mu ngi ko bëre man la Bac Seras mu ngi ko bëre. nit loolu nii la. dara sant yàlla. déglu déglu déglu lépp loo mu la terrain central la billaay wallaay tànk leen laa def dem seetaanu ko terrain central ñu bëre lu ñuul ñu loo bu Balla Gaye am muuma kon kii daf maa umpale kii di wax ay jamono yu mànga mais yow barki alxuraane karim fexeel ba li nga wax nga tëjal sa bopp bu ñu yëpp amateur yi amateur yi bu ñu ñëw sensé dagg seen xaalis ñëw fii ñëw fii teg te wanewul si ne wanewul kenn nañ bëre mu jeex ku dàq bëre daan ku dàq bëre yow yàlla la yàlla may ndam ku ëpp doole man dama ko koj diine mu diine mu sampu neen kii tapet la kii. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. Mbasa Mbasa